momi ba witaatu sama yoxo daa jàngee université ab maîtrise kii fi jógee di directeur chefali di directeur CDE xam ni entreprise bu gën a Afrique de l'Ouest boo doon seet ci bariwul danaa ko dugal dafa am na liggéey moo xëy suba rek oto bi gaar war koo yóbbu mu dugg ci ba ni ma dama tur ma ko kii lu tax moom ma naan ma am ma di mais gëm naa la dugub suuf sax def mu ko ma ne loolu danaa danaa bëgg sa mbokk yi ma de buñ la jàngaloo ma nga toll fii ma jox la ma fexe ba nga am liggéey bii nga am entreprise bii nga xam ne amul. man ma dootuma dem fenn waaye booba dëkkee yàlla ko yee keneen kul moom booba man ngaa jàpp ne yóbbu na waaw bare jaaxle war nañu de naa sax ni ko am na ci oto dem nañ ba nii waa ji ku liggéey moom day asiku lil awsa jamono yi nga xam ne ni dañu naa murit ak dof rek bu ñu jàngul bu jëkk dañ daan jàpp ne murit daal lii bu jëkk di raam di sujjóot ak raam ak jooy topp nit ay dof nekk ñoo ko war ñoo ko war a mu jàng lan médecine jàng ba nekk agressif mu ku féete kaw ay agressif ci réew yi taxaw ñoo féete kaw kon loolu di wéete lu njëkk lañ jàppoon ne murid yi ay dof la ñu maa ngi nuyu amee bopp yi nga xam ni suñuy saaliwu moo def yàlla dogal ci ñoom ñuy samay taalibe ci wàllu français ñu ma dàq jàng rek ci dee bu ci alxuraan arab man yàlla dogal na dama jàngul alxuraan era koydentili alquran benn araf laa ci xam muy waaw te li muy noonu dës moo tax mu xam ko ndax man ay tubaab la ñaan tax sama kay di juddu bee cur wacce bee juddu bee cop laa tudd waaye mënuñu ooñu ñu baax de xam naa ma war a sant tey jigéen ku nekk danaa dugal dëgg xanaa digg ba tudd ba tudd moom mi lay li baax baax baax baax tey jii je vais tout naa ko jàngal nan la jigéen jiw di waddoo jigéen buy waddu day waddu bu sëriñ day jot ci kos waaye waddu di sëriñ boo xam ne di jigéen boo waddoo boo dox muy pilal dégg nga jigéen ju baax bu ko def dangay waddu kor man nii maa ko jàngal muy jigéen ju maandu daje ma xam ne man li gën a li yées man mooy man góor bu fiir laa woor ndax léegi dem naa ba ñi ma àndal leer na ma ni lu góor di fee ci jigéen ñoom ndeke xam nañu ci parce que sëriñ Sall waaye ci jamono ca jamono mà Firon. Maar een veerkoende. waaye loolee ngeen naa ca tax dama am ay góor te sẽ Sénégal gii dama bokk ci fi gën a rafet ay jàpp. Je बचपन मी म्हणजे

acceptant le service immédiat. 4 40, 4 5 ans. Aïe, 25 ans. C'est sa fille, il y en a qui vont l'appeler que euh, 50 ans. Parce qu'elle entre dans sa 5 ans. Il est numéro. xaaral ma ne sama taalibe yii di ma tàggu ku ci bëgg di ma tàggu Punya ñaaree buku ma ko dee ku mu neex na takk bu neex takk nah du ma tàggu ndax tàggu lu ma jox sàkkee nit ñoo xam-xam waaye yow ba lay sàkkee lépp mënu ma wax parce que Sëriñ Tuuba yaay jigéen ju tedd yaa baax yaa neexal na yow laay àndal na